saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa le roi des arènes Modou gannaaw ba mu bëreek Eumeu Sène ba léegi mu ngay topp ci 25 millions yuñ ko yoreel reliquat ab ñaar fukki millions ak juróom lay topp di ko wër boobee ba léegi le 28 juillet 2019 la Tafa Diop amaloon bile combat ci stade Léopold Sédar Senghor waaye boobee ba léegi Modou Lo ngi soxla reliquat mënu caa jot moom Moustapha Diop ma tëggoon combat ba moo yëkkati ay kàddu xamle li ni mel ne bile combat doxul woon dama caa perte muy Eumeu Sène maa ngi la war a jox 25 millions te allah balaa saison bee jeex danaa leen fay seen xaalis lamb la woon képp ma yaakaaroon ne bu ma lambee danaa daj lamb naa dajuma dara waaye dama koy sant yàlla ñeneen ñay sant yàlla ci feebaru Lac Rose ba mooy waa gannaaw ba ñu gisee ne mbër mu am talent la mbër mu am jom mbër mu mën a bëre moom Lac Rose waa pare nañu ngir recruter ay médecin ngir ñu faj jeune ba jeune ba ko teree bëre tere ko compétir moom la waa fa

boppam fu ko neex bëre que libre guddi yi tey lim ay adversaire am mooy Modou Anta bu Thiès man Modou Anta ñàkkuma ay adversaire daaw sama combat ak ama neex tuuti rek moo ca desoon mu taxaw ba ñu ko laajee ci ay adversaire am dafa xam le ne man ku ma ëpp adversaire ëppoo ay adversaire man Modou Anta ay adversaire pàcc la am ci làmb ji lii problème bi kay du adversaire waaye li promoteur yi di fay moo tuuti mbooleem li fiy ñëw ci ay promoteur ak Ndour boo moytuwut porter plainte dana ca am Kalmu Ndour ak Ngel Jono Assane Ndiaye moo taxawal bile combat ba wax ak seeni manager ba jubóog ñoom ci prix xaatim contrat ba ku nekk jël sa combat dox sa dox waaye fan yi dafa mel ni Kalmu dafa jël tànki ñàkk bëre moom Kalmu Ndour bëggut Ngel Jono te loolee la di bañ a dégg ba sunu làmb jokko Kalmu Ndour la mu xamle mooy man maa bëggoon a Ngel Jono waaye sama entourage amul kenn ku ci nangu moom ñaar fukki fan di ma ko delloowaat comme que nee day delloo sama avance damay xaar ba mu jël beneen avance bu koy def may dem ak moom ci yoon bu ñu waxtaanee ngel joonu lii la xamle Calme Ndour bu waxee ne moo ma jiitu ci làmb moo ma raw ci làmb day wax lu ko neex moom amu fi lu dul 9 combats 9 victoire man 12 combats la am 10 victoire ak ñaari défaite maa ko ëppi combat maa ko ëppi victoire kon bu may chance di am man ngel joonu maa ko may